jumaay poroxaan ju yees ji kilifa yi ñu ngi ñëw di ko nemmeeku bokk na ci sëriñ Abo Baraka mi nga xam ne mooy xalifa njabootuk cheikh Mamadou Fadal Mbacke gi ginnaaw bu ñëwee fii ci poroxaan ziare cheikh Mamadou Mountakha Mbacke Bachir ñëw na ba ci jumaa ji ànd ak rakam di sëriñ bu Mbacke mi nga xam ne moo jiite kuréel gi di Touba ca kanam ak taalibe yi ñu àndaloon ñu visité jumaa ji nga xam ne moom la fi sëriñ Mountakha Mbacke Basiru taxawal moom sëriñ Abou Baraka nag bi mu agsee kilifa yi nga xam ne ñoo doon saytu liggéey bi te yoroon ko leeral nañ ko lépp loo xam ne moo jëm ci jumaa ji rawatina intérieur bi Cheikh Abou Baraka ak sëriñ bu Mbàkke yéemu lool ci liggéey bu am solo bi nga xam ne sëriñ bi def na ko fii ci Poroxaan mu nekk lool santaat nañ ko ci bu baax a baax ñaanalaat ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér sëriñ Abou Baraka bi mu agsee ànd naag sëriñ Moussa ak yeneen kilifa yi nga xam ne ñoo yoroon liggéey bi ñu leeral ko li nga xam ne moom lañ def ci biir jumaa ji ànd ak moom mu visité ko lépp loo xam ne rek moo jëm ci liggéey bu am solo bi nga xam ne Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbàkke Bachir moom la fi def ñu leeral ko sëriñ abu Baraka ak sëriñ bu Mbàkke ñoom nag yéemu nañ lool ci liggéey bu am solo bi nga xam ne sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru moom la def fii ci diwaanu Poroxaan mu nekk lool ñaanalaat nañ ko bu baax a baax mu yàgg fi lool te ànd ak wér bismillaahi fii niin ak daala yàllaaw sawi baqaa abin bi fiik yàllaaw yaa man lawol amru yaa man laa sariika law wasi wa ma lil waad لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقل بزال يا مليك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 نفسي بيتي إن منك يا الله